asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah ah, bala ñoo tàmbali dañoo bëggoon del ci déclaration Ahmed xalifa Niass Ahmed xalifa ñas ah, nit la koo xam ne ah, Sénégal yéen ñëpp ko xam même xale yi bootu xam nañ ko mag mu ñàkk fayda mag moo xam ne dama ne xamul sax yi diine waaw c'est un imbécile heureux nit la koo xam ne yéen ñëpp ko xam jërut suñu koy expliqué di wax ne Macky Sall na fomp élec na fomm élection yi na fomm élection yi defe naa ne ëpp naa déglu ëpp naa déglu te it kenn déglu ko ndax Macky Sall ci boom xam na ne ab dof la góor moom bu xasee ba dëngalu ci kanamu moromum góoram rek dootu nit góor bu bokkee mbàjj moromum góoram añu yëngatu yëngatu yëngatu ci mbir mbàjj mi kooku kooku moom ay waxam ëpp naa dégg te moom Khalifa Niass kan waxante dëgg waaw c'est un pédophile kii dañ ko war a jàpp dañ ko jàpp yàgg na Cheikh seeni kun jàppoon na ko ba tëj ko ba tëj ko ay bokkam di jàmbat di jàmbat ba màkk ba Abdou Diouf dem ñaame indiwaat ko waaw c'est un pédophile de renommée internationale kon ay waxam daal ëpp naa xool kon focus xam ne élection yi moom kenn mënu ko toppale kenn du ko toppale te day continuer waaw malgré baaxut dara baaxu ci dara dara baaxu ci fichier bi yeeg dara baaxu ci ak méthode bi yeeg matériel yeeg dara baaxu ci kooku ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ko waaye nag euh, ñàkk pexe pexe la ñàkk pexe pexe loolu moo nu ci boole. waaw loolu moo ñu ci boole kon euh, kon dalal rek ànd ak yi ak tous les Sénégalais yi ñun ñëpp ngeen xam ne noonu rek noo ko mën a bokk élire te ngeen dem jëli karté yi. asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñu ngi leen di siyaare euh, te dellu di leen balu àq ndax daanaka at yi ci coono bi nga xam ne ci lañ nekk. lépp kenn xamul lu mu doon maanaam ay guddi yu bët seetagut euh, nun Sénégalais yëpp bu ñu waxantee dëgg nun ñëpp bokkoon jaaxle te jaaxle gi it euh, dañagul gi dañagul ndax euh, ñàkk pexe ñàkk pexe ñàkk yoon te it wóor na kuy ab sénégalais kuy ab sénégalais ne ni préparer préparé élection yi baaxut kenn ku ne xam na ne baaxut waaye ah, Sénégal yàgg naa dund ci ñàkk pexe dëwlin yi ñu lekk mu jóge Chine lépp maam xoox la ñàkk pexe ñàkk pexe moo tax imaam yi bari ci la ñuy añ ba suur dem jiite ci euh, nii Macky Sall lale élection yi baaxut waaye amuñu pexe amuñu pexe de te élection yi du nangu mukk mukk ñu di ko fomm kenn du ko fomm malgré que nu ñëpp à cent pour cent des sénégalais xam nañ ne lii Macky Sall lal dara baaxu ci waaye élection yi euh, quatre vingt dix neuf pour cent des sénégalais dañ ne kenn du ko fomm te man mii ci ba ñu fomm ko ci laa bokk malgré que malgré que ak sendal la ak sendal lañ ma jox di ma ca rootloo euh, kan dellu xalaatal surtout yéen ñi nga xam ne yéen nekk système bi away nekk nit am na lool bu la ko sa morom nanguloo sax maamul la tibbal da ngay cof waaye ni ngeen ko bëgg a doxale rafetut waaye nag may soññ Sénégal yëpp jëli leen seen i carte ngeen téye kenn ku ci nekk ni jëli aw kartam téye ko te jomaay mii mooy daw parce que amuñu pexe amuñu pexe bun amoon pexe Sénégal yëpp ay bokk ci élection yi Macky du dàq kenn ba buñ leen di duuma nga xam ne dañu leen mën duuma leen waaye Macky tànn ñi ko neex ñu dem ci élection yi booy xool ñeent ñeent tey bu fekkoon ne coalition am na ñeent tey ànd ñi ci des ñëpp Macky la ñuy àndal waaye Macky euh, toujours ci ay pexe lay ne fi mu ne Alla Diouf moo waroon na ko sarax wi mais defatuñ loolu Guinée bii boo gis ñu tànn ko ab Guinée la bu ci ñàkkee bakkanam dara mbokk mu koy jooy néew fi moo tax Macky Sall tànn ko boo ko def nagu sarax yéen nag li ma leen di digal jële leen seen i carte Macky kenn mënu koo tee sàcc waaye nu itam daañu am fulla yoo xam ne bu Macky sàcc fukk ñu dugal ñaar fukk bu Macky sàcc fukk ñu jéem a dugal ñaar fukk mu di leen fàttali màtte màkke nag mooy wàññi màkke wàññi waaye ba tey loolu jaaxaluñu ndax ñoo nga ca amuñu pexe ak léefi sës comme léefi nag kan ci jàpp waaye kii moom amul ba euh, boo ma ni bokk ba may bokk na ko bokkam génn ci lii amiru ba bu fekkee ne am nay bokk wala ma gis ku déggoon pël làkkal ma ko ci pël ndax ay bokkam dégg ko ni ni saraxee nag bi daañ ko saraxe noonu am na ci lu bu wér gasal nañ ko bàmmeelam ba noppi Macky Sall baaxut baaxut di tax mu tànn Guinée bi tànn ko remplacé ak nag wi xam na ko waaw Amadou Ba bu ne sorox dem bu ne sorox dem benn Sénégal dul metti waaw boppum nag wi ak boppum bii moom la fétiche nar a remplacé waaw ko xam ne bokkam nag yee ko nekkoon ci génn nga dem ci xarita mi yemu daan àndal démb ak bërki démb ba teraanga dab ko fi muy waa impôt et domaine foofu la dëkk ñoom la xam ñoom la daan àndal ay gaayen lañ woon xamul Macky Sall tey xamu ko ëllëg na dem tuubal leen jëm jéem a àndeek ñoom te génn ci élection yi lu ko moy lu ko moy lu ko moy bakkan du ko fekke waaw maa ngi jégalu bu baax a baax a baax dana lim dim leen jëli carte yi ndax carte kat moo fi mën a jëlee makk Sall pour le moment ndax bu yàgg ba tey nu ne jéemee nañ ko munuñ ci moom dara te mënuluñ ko dara te dato élection yi kenn du ko fomm kenn du ko fomm kenn du ko fomm le cinq février tous les sénégalais nañ génn bisu dimanche la wote wote bu sell wote bu jaar yoon teewu na kenn ku ne xool sa mbaggu morom Macky kenn mënu koo bañatee sàcc waaye bu sàccee junni dañ fexe am ñaari junni nun loolu moo ko fi faj sinon du yàgg mukk mukk ba li ñu bëgg nu am ko asalaamaaleykum wa rahmatullah man da Seydina Ousmane Dramé bu réveiller des consciences